bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwati al iman mustamicuuna alkiram maali al ulama samahat ashuyuux asaaba saada asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki tedd yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu te di leen bal aq di ñaan yàlla yal noonu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci ndakaaru dellu siwaat nag yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaar yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam te ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji oustaz Alioune mbay ginnaaw loola nag noo ngi doollee ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër doollee seen suñu borom subhaanahu wa taala ci li mu nu may te mënuñu ko may sunu bopp ñaan ko it ñaan gu ànd ak cant mu dolle faj aaju yi te gitti si saafara jàngoro te jéggale bàkkaar yi yàlla nu yàlla gën a xiir ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yëgul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule lu nu am yàlla na nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla na nu am yàlla yàlla na yàlla gën a sàmmal boppam yàlla na yàlla gën a aaral boppam yàlla na yàlla gën a taf ci boppam bi jaay sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu nu yàlla bàyyi sunu bopp yàlla bu nu yàlla bàyyi seytaane yàlla bu nu yàlla bàyyi àdduna yooyu yépp ñoonu man ndax ñoonu fi jiitu waaye yàlla mi nga xamante ne moo créé lépp te jël nit taf ci boppam yal na nu gën a sàmmal boppam aaral nu boppam yal na yàlla tàgg sunu xol yi def ci leer def ci liimaan def ci ngëm def ci sabru def ci adlu def ci moom taqwa def ci ñoom ihsaan yooyu nga xam ni jullit bu ne mel jullit bu ko jikkoo yaa ak sa borom subhaanahu wa taala yéen bokk écrit kon yal na yàlla boole ci ay écrim boole ñu ci ay jaamam jaamam yi mu gërëm te sopp leen lépp lu nu jaamu yàlla mu néew ak mu bari yàlla na ko yàlla nangu te fulandil ko lu nu mooy yàlla mu néew ak mu bari lu nu xam ak lu nu xamul yàlla na ko yàlla jéggal te suturaal ñu àdduna ak alaaxira sañ na ko mën na ko yàlla na nu ko defal bi rahmatihi yaa arhamar rahimin yaa rabbal alamin mbokk yi ginnaaw nuyoo yeeg ziyaar yi ñu fas yéene ñëw ak yéen nag ci bunt bi mujj sunu ñetteel bi épisode ci ama uhdiya muhtazan ala jalalin sunu ñetteel bi jotaay ci bunt boobu foofu lañuy ñuy doorewaat tey teggi sunu baaraam fanu ko tegoon ca ajuma ji ñu génn toppoon ngeen ñu ba agseeg yéen ci ñan ñoo ko doon sang léegi d'accord nañu ne dem na miir mi Omar miiroon jeex na tàggo sago gi Ousmane tàggoon nag boppam sago jeex na lafañ ak paralise gi yu nekk woon deñ na Abubakarin Sadiq radiyallahu taala anhu delloo na leen ci seen borom subhaanahu wa taala xëccoo gi deñ na ba ñu d'accord ci ne abubakarin saddiq mooy wuutu yonente bi sallallahu alayhi sallam nekk premier xalifaam àggale mission bi ñëpp nangul ko ko ñëpp jaayanteeg moom déglu ngeen ni keroog discours bi nga xamante ni moom la abubakarin saddiq discours cépp discours politique général am na nga xamante ni noonu la discours ba gàtte ak na nga xamante ni noonu la discours ba yenoo maanaa ma ni lislaam ñun ñëpp ñoo di roy ci moom dëkk yi nga xamante ni dañoo copier lislaam doonte sax iñaane nañu wax ne lislaam la ñuy roy waaye xam nañ ni ñi copier lislaam ak doxalinam tey raw nañu seen moroom dëkk yi ci wàllu justice ci wàllu économie ci wàllu jàmm ci wàllu santé ci wàllu lépp li lislaam tëraloon doonte tuddewuñ ko lislaam waaye ñoo ko lislaam ñoo ca bokk gis-gis te roy ko gis nga tey la mu fa mu leen yóbbu sida bi lu muy bari bari bari bari am na dëkk yoo xamante ne doo leen ca tudd du dëkk yi nga xamante ne dañoo nekk ay jullit pur et dur loolu yooyu amu fa crise mondial bi ngay dégg dëkk yi nga xamante ne nii système ul islam la ñu jël ah àggu fa santé yi ngay dégg yépp ak yenn insécurité yeeg yenn yi sàcc yi yeeg yenn yeew say jur yóbbu ko yëpp dëkk yi nga xam te ne dañoo respecté l'islam te na mu tërale xel xalaatul benn yoon tëdd ba guddi ñëw di yeew yi ay bëy jàmbur mbaa ngay jiital géttu jàmbur ay nag mbaa lu man doon mbaa nga dajji bitigu jàmbur mbaa nga yor sab kaat kaat ànd ngeen mekk benn gang songandoo benn dëkk fetal ñi rey ñi dajj koofar fa ba yóbbu du mujje fenn ci lu ubbi nañu enquête ak jàpp nañu nii ak jàpp nañu nangam ñu leen di bay bayal loolu lislaam euh, bu doon dañoo jël système am di ko doxal yooyu jeex na fi bu yàgg yàgg ndax lislaam am na solution moo tax ba ñu d'accordee ba Abubakar jë jëlee dafa neen li atiuni ma ataatullah na ngeen ma topp li fii maa ngi topp yàlla na ngeen ma dimbali fekk maa ngi dimbali koo institution yi tànk maa ngi ci teg sama tànk na ngeen ma dimbali bu leen ma wor aba amar moo jóg ni ko duñu la wor duñu la woon ginnaaw waaye bu boo demee ba bëgg ci jalgati mbaa nga dëng ci suñu jaas yi lañ lay jubbante ndax loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi ko jëlee woon màkk këram tas ci njabootam tas ci ñépp tasaaroo mu ngank ko ci bu ñu déggee mbii ñu ànd ceeg moom bàyyi suñuy njaboot bàyyi suñuy kër bàyyi suñu alal ak suñu suufi maam ngir yàlla kalimatu laa ilaha illallah ñuy ñëw ba lislaam am doole àdduna bi ñëpp le monde ak adduna bi fépp di wax ashhadu an laa ilaha illallah mu mujj sa loxo nga nar koo foye bu boobaa du ñu la jubbante loxo ki wax jaasi la jubbante ba nga ne xoc te wax na dëgg waaye gis nga aw euh, am fit ak ñeme ki nga nekkal te bañ koo yab dafa baax trop ci lu mu mën doon structure bu mën a doon man ngaa ñeme ki nga xamante ni moom nga séqal muy chef de l'État muy directeur bi moo xam directeur bu mu mën a doon nga ñeme ko te bañ koo yàpp ñeme gi mooy fexe ba lu mu mitti mitti mitti nga mën koo wax dëgg te dëgg gi it du looy wax ba pare di ko wutal ay seede kilifa kenn du ko wax dëgg di ko wutal seede mbaa nga tëjoog moom mu wax yow ba pare nga génn def conférence de presse te la mu la doon wax wala la nga séq ak moom loolu ñu tudde secret d'état secret d'état mooy loo xamante ni yaag moom dong yéen ko séq ndax am na ñoo xamante ne bu ñu xamoon tey euh, point mort bi kër gi di doxe mbaa société bi li directeur bi daj ci fay salaire li directeur bi di daj ci fay courant ndox la directeur bi di ca fay téléphone ak la ca aju fa mu koy jëlee nu mu koy lijjantee bu ñu ko xamoon dañuy démissionner dañuy dem loolu mooy secret d'état noonu la mel ci réewit réewit bu ñu xamoon la président bay daj ya muy sooxaale ya mu manta wax ya muy nëpp nëppal ak ya nga xamante ni du ñëpp ñoo am niveau mën ko xam du ñëpp ñoo am niveau mën ko supporter loolu mooy secret d'état voilà ñun nag foofu nañ fiy juum lu baree bare bare jàpp nañu ni xale yi tuuti ñoo war a xam li xew jàpp ne yeewu nañu nangam nangam fekk na état demewul noonu état état dafa laaj maturité dafa laaj xam-xam dafa laaj log maanaam dafa laaj euh, ni cell ni muut fekk yaa ngi toog ci xalu safara ba ne ni pat waaw loolu loolu loolu loolu jar di waxtaane la ba ñu di ko gën a xam mais du lépp la naan lañ lépp la naan fang jeeg bi sëy ci kër gi bu xamee ni ngay yore kër gi bu subaa mu meeb ay bagaasam dem yoonam waaw moom gis na rek saa wu xëyee ñu yëkkati dépense ci loxoom mu doom dem marché ànd ak moroomi jeegam <clears throat> bu ñëwee teg ci nam togg dang am nangam nangam bu tàkkusaanee mu ba baaral reeram solo ba set xaar jëkkëram nangam nangam waaye bu xamoon jëkkëram eh, nañu koy maaj loo ca bureau ba ak lañu ko fay def loo bu fekkoon ne loolu dafa leer ci bëtam du sotti adduna noonu lay demee loolu mooy institution loolu mooy secret d'état Aboubacar euh, euh, Omar wax na ko dëgg waaye yabu ko yabu ko xeebu ko waaw euh, Aboubacar tam nangu na nangu na ko wax ak moom ci kàddu gu dëgër ndax lii da ngeen ko bokk te moomoo ko ëppale woo ko ci moom sañ-sañ mënoon koo jiite comme ni nga ko jiitee mënoon koo yor comme ni nga ko yore di ko doxal sax nu dàq ni nga ko nar a doxale kooku naw lañ ko mën a def waaye mënoo ko teg benn booy mbaa benn jirim mbaa koo xamante ni waxam waxam kontewul ay nit dañuy nawloonte loolu tax Aboubacar nawlo Sidna Omar ca waxam boobu blessé wu ko gaañu ko naqadiwu ko mun ko jërëjëf ba ma amee ci sama gouvernement ku ma mën a wax yii dëgg lu jar a jàngat la lu jar a xool la macha allah kon d'accord ci ni Aboubacar mooy doon xalifa rasulullahi sallallahu alayhi ci kaw suuf awalan léegi nag maam alaaji Malick léegi nag ñu jublu nañ kon ci defar gi ñan ñoo ko doon sang maam mu ni wa xaydarun ay dara euh, muy aliyu mu nee na moo ko doon sang waali yuqallibuhu al abbaasu ka ménga mbirum wëlbati ma di wëlbatil su ali dee bomb moom muy wëlbati ak di ko téyel nee na abbas ibn abdul mutalib la ñoom rek maam mu ni déedéet wab naahu ak ñaari doomam yi yoo xam ne ñaari doom yi abbas moo leen jur ku ñu wax faddal ak xusam ñaari doomu abbas yi ñoo leen doon jàppale gis nga ba tey ci wàllu sang ak toppatoo néew koj armalam rek ñoom ñoo war a def lii ñu war a def koj armalam nag mooy ñi nga xamante ne ñooy sa koc armal abbas bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi aliyu rakk la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fadal ak xosam mii ñoom doom lañ ci abbas kon ñii ñooy famille bi ñooy alu ñoom ñoo ko sang waaw maam ñen doon sotti ndox ma mun yasubbu maa an alal haadi usaamatu ma shuqraana wa laws maadudun bi jamcihim nee na yasubbu maa an ña doon sottil ndox ali di sang abbas di wëlbati fadal di ko jàppale ak xosam nee na ña doon sotti ndox yow ku ñu wax ibnu zeyd usaamatu ibnu zeyd moo doon sotti moo doon sotti ndox moo yoroon raakol bi walla moo yoroon siwa yi yor bi di sotti nangam naam moom rek mu ni ma suqraana ak keneen ku ñu wax suqraan wal laws ak keneen ku bokk ci giir laws maa duudan ñooñ kooku ku ñuy lim la bi jam'ihim ca mbooloo ma waaye waxuñu ne sotti na wax ñu ne bomb na waaye ca mbooloo ma la bokk moom itam mu ni quraaxun waaw lu ñu ko sangee nag mamalaaji Malik mu ni ñetti ndox mu ni quraaxun ndox kese ak sidru ak ndoxum déem wala ndox muy fuur comme saabu kaafuurun ak kaafuur nee na biyaa ci ñetti ndox yii xasaloo ca la ñu sang yonent bi sallallahu alayhi wa maam alaaji maa ngi ndox mi fu mu jóge mu ni wal maawu ndox mi miin bi iri xërs waaw min bi xërs ci teen bu ñu wax teen biiru xërs fala ca ndox mooma ca lañu roote ndox manu sa nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndox manu mel naam mun ne arja bi sanimi ndox mu neex te teey la weex tàll ndax mu ndox mu bëggu nee na ci lañ ko son euh, sange waaw ma alaaji maali ba nu sangee ba pare naka lañ ko doon sànge nag ak fan lañu ñu jëlee mbalaan yi mu ni wa kafanoohu bi biidin qul yamaniyatin wan fil imamata wa taqmiisil fil ghimami jaarama Alaaji Maalik mu ni wa kaffanuuhu nee na sànge nañu ko bi biidin yére yu weex foofa lañ ko jëlee nag euh, di rafetlu yére yu weex ñu sànge ko néew waaye tekkiwul ni deesu ko sànge leneen bu yére bu weex amul tam mën ngaa jël bu ñuul mbaa nga jël bu bu mbaa nga jël beneen maanaam couleur bu weex bi dañ ko ci taamu rek waaye nag nekkul ni rek moom lañu war a def waaw ndax lu weex dafa di couleuru lislaam couleuru julit ñu cey mën yërmande yàlla ako njulit ga waaye nag bu fa bu weex amul mën nañ jël beneen waa moom alaaji Malick bu weex bii fu ñu ko jële mu ni bu ñu la laajee fan nañ jëree xool neel yamaniyatun yaman lañ ko jële yaman lañu jële càngaay loolu fa lañ ko indee eh, sàngee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuñ ko doon sàngee maam mu ni wan fil imaamata na nga dàq kaala bu la nee bañ koy sàng dañu def kaala ca moom mu ni déedéet kenn defu ko kaala nee na war tax miisi nee na na dàqit da nga dàqit ni simis amul kaala amul simis fil ximami ca càngaaya mu ngoog waaw maam kon nuñ ko sànge nag mu ni وكان يدرج في الأكنان ثم همه صلوا على البر أبسازا بلا أمام وسليا يا إلهي وجسيا أبدا anna muhammadan al-muxtaar fil qidami mu ni wa kaana dañu koo lëmës déglul dañu koo lëmës fil ak naafi ca càngaay la noonu rek lañ ko talañe ndax càngaay la dafa rëy ñu lëmës ko ca ko ca laxaar ko ci ba mu ni ñum waaye nee nañu dëgguñ ca kaala dëgguñ ca simis dëgguñ ca lii dëgguñ ca laa comme ni amee ci jamono yon bi sallallahu alayhi nii la ko sànge waaw maam Alaaji Maalik ba ñu ko sàngee ba pare nee na ñu def dañ ko nit jàkk ji jullee ko wala nu ñu def mu ni déet déet te néegam boobu mu génn àdduna foofee ñu ko sange foofee ñu ko sànge nee na fa lañ ko jullee nee na salloo alal badri awsaasan bila umami jullee nanu yonnen awsaasan bila amami nee na xamu yëgte woon nañu maanaam sallow julli nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam awsaasan benn par benn mbooloo par mbooloo groupe par groupe bila umamin waaye julle wuñ ko jullik mbooloo bi nga xamante ne sàng nañ ko ba tëral ko ba pare yéen bi sax moo leen ko waxoon dañ naa woo alu bayt rasul jege ñaaleem yi ñu jullee ko bañ ca pare ñu woo saxaaba yi ñu jullee ko bañ ca pare woo waa lansaar ñu jullee ko bañ ca ñu woo waa muhaajiruna ñu jullee ko afsaasan afsaasan bilaa umamin par kenn par kenn par kenn par kenn par kenn ba julli ga àgg noonu lañu def sang bi aleyhi salaatu wassalaam nii lañu ko sànge nii lañu ko sange ñii ko doon sang nii lañ ko jullee waaw léegi nag jéb nañu armeel ya maanaam du armeel ya sax foofu ci néegam bi ba ñu gasee ba pare ay waay koo doon dugal ci xabru ba mu ni fil xabri anzalahul xussaalu awsuhum waa wa adbaqu labinaatin tisi fi rujami nee na fil xabri ci bàmmeel bi dañuy wut ay gaskat ñu ni ñaari gaskat ñoo fi mu nekk ñiy gas di def laxd ak ñi xam dañuy gas di def euh, jallampe jallampe comme ñun ni ñuy def fii ci yoof ak yeneen dëkk yi euh, noonu lañuy robe waaw waaye nag ñu ni ñi gaskat yi rek ku ci ku ci ku ci gën a jege rek waaye ki jëkk a ñëw dañoo gas pax mi def ko euh, def ko galen labinaat def naa noonu la boo demee ñun fële ca sunu dëkk taseet ak dëkk yi ko wër xëy na li mu am garab a tax noon ñaari pax la ñuy gas ñaari pax la ñuy gas am na pax moo xam def gas pax mu mag ba mu xóot nga dagg ci biir pax mi beneen pax boo xamante ne bu xóot la ñu door a jël nag ay bant bu ñu dugalee néew bi ba pare ñu door a jël nag ay bant wala ay ngeer wala ay xiis wala yu mel ne xam ni noonu suuf si du ko laal ñu jël loolu lépp teg ci diggante suuf si ak ak jëmm ji xamante ne moom fi mu tëdd danaan ñum kenn du ko laal ñu door a ba suuf nag mu dal ci kawam waaw kañ am na ñoo xam dañuy gas ba pare yett geneen kees ci kanamam nga xam ne bu ñu ko dugalee ba ci biir dañ koy buux mu dugg noonu ci biir nga ne pax mi dara du fi nekk waaw dara du nekk ci pax mi nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañu ko gasale dañu ko gasale ba pare gas beneen kees dugal ko ci biir foofu nga suuf si duñu ko puus ci kawam day am lu lu protège diggante mag eh, suuf si sallallahu alayhi wa sallam mu ni fil xabri bàmmeel ba anzalahu ñi nga xamante ni ñoo ko wàccee ci bàmmeelam nag ak ñi nga xamante ne ñoo ko nangu ñoo ko jàppoo neena na alxussaalu ñi nga xam ñoo ko doon sang abubakar euh, kii euh, aliyu ak abbas ak fadl ak xusam ak usaama ak suqraana ak lawsuhum ñii ñoo wàccee yonent bi sallallahu ci biir këram gu mujj salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ndeysaan sang bi dem na dugal nañ ko ci biir bàmmeelam bi ñu ko dugalee ci biir kees gi dañu ko dugal ci ruq bi noonu dugal ko ba càngaay li feeñatul na maam alaaji maa ngi nee na nee na wa at baqoo ñu tëje ko àlla bi naati tisi juróom-ñeenti birig yoo xamante ne nii dañu ko tëje pax mi nga xam même fi nit ki taxaw di rob ñun bu doon fii bu ñu fii ngay taxaw tey di defar foofu la néew bi di tëdd léegi nag ñu wut juróom-ñeenti birig yoo dañ ko tëjee pax mi nga ne bu ñu ko suulee jal rek ngay gis waaye moom mi ngi ci pegg bi ndax ni mënoo mënoo boo doon gas foofa doo gis dara boo ko doon seet doo fa gis dara foofu lañ ko foofu ko def sallallahu alayhi wa sallam ali yoo ko nangu mook abbas ak fadl usama suqraana ak seen aw suma ñoo ko jàppoo tegg ko ci biir dugal ko ci biir ñu tëral ko ndànk sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñu bi ñu ko ne jëyi bëgg koo dugal ci bàmmeel bi nee na wa fihi afrasha hamraul qatifatu shuqraana shuqraana wa ma waafaqa shuqraanu min arimi nee na bi ñu koy bi ñu ko ne jëyi bëgg koo dugal ci biir am na ko ñu wax shuqraan dafa jël benn moquette wala boog benn benn benn benn darab waaw benn darab bu xonq bu bees tàq daal di koy lal ci biir bàmmeel bi pour bu ñu jee tëral yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëral ko mu tëdd ci kaw bàmmeel bi ndax bëggul woon ñu teg ci suuf waaw maam nu ñu mujjee nag mu waaw ah, wamaa waafaqa de wamaa waafaqa suquraanu suquraan kenn kenn kenn dëppawul ak moom ci loolu kenn dëppwul ak moom ci loolu min arami salawatullahi wasalaamu alayhi ñu ni ko la lii daal duñu ko def mu nekk aada bu mu nekk aada mukk daal di koy génnee wa qiila qad axrajo baada ulxi uh, ulxida baada ulxida qabrul mustafa xayru min alqadimi nee na xat axrajo génnee nañu darab booba baada ul xida ginnaaw ba nu ko defee laxd xam nga laxd mooy li ma la wax noonu nu ñu ko gasa kees dagg genn kees ci bàmmeel bi nee na euh, xaprul Moustapha xayru ilhaadin ngën gi laxd lañu ko defaree min al qadami bàmmeel ba ngoog ee laa ji nu sahaaba yi def mu ni wabnul hamamati bilaal bilaal ibnu rabba bilaal ñàkk na bàyyi ñàkk na kilifa nee na wabnu xamaamati gis nga léeg dañuy dàkkale bilaal ak xamaama ci yaayam waaye lu lépp ci ñoom dañuy wax ni bilaal ibnu rabaax rabaax mooy baayam waaye xamaama mooy yaayam moo tax mu ne wabnul xamaamati doomu xamaama ju jigéen ji di bilaal mu ne rachal qabr moo jël ndox di ko sotti ci qabru ba moom maam alaaji maali bu muy fu mu tàmbalee mu ne yabdau min wijahati raasi summa al qalbi wa darabi mu ne mi ngi tàmbalee wis ndox mi ci bopp bi bi ñu robee ba suul ba kenn gisatul sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ci la bilaal ni bëri jóg del ndox ndox mi nekkoon foofu ngay sotti ci bopp ci bopp bi fi bopp bi tollool sallallahu alayhi wa sallam di ko sotti nag di ko sotti ba ca tànk yi ndox mi jeex mu sànni bidong bi ni groupe sukk ak suuf ma laa ji maa ngi nee na saxaaba yi seen àdduna ñépp seen àdduna tukki àll ni seen daw nekk ci lëndëm daamish boo xamante ne kenn xamat kenn xàmmewul kenn Omar ibnul Xattaab ndeysaan di welax lii du xool saaba yëpp jaaxle ki ñu gënoon a yaakaar ki ñu gënoon a bëgg seen wéttal seen lépp salawaatullahi wasalaamuhu alayhi rob nañ ko ci biir suuf boo ko xoolee rob ni mu méttee ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi amoo benn pexe ci moom lu may gas ba mu xóot dugal ki ci biir jëlaat suuf teg ci kawam te ba loolu mooy yërmande ji te loolu mooy sutura si sallallahu alayhi wa waaye kenn gënu jaaxle bilaal adduna adduna ñuy selaw picc sabul gunóor sax sabatul mbaam ŋaaxul giléem bëmbul ñépp ni tek ñëpp ni selaw kenn bëggu la wax xol yi fees del del del del del dënd yi fees del ndeysaan bàyyi jirim yi nga xam ne nii jirim ak doxandéem ku ñuul jaam ñépp la daan fat ci këram daan lekkandoog ñoom daan ndoog ñoom ku jooy mu nax la ku xiif mu jox la nga lekk sallallahu alayhi wa lu waay bëgg mu taxaw ci du toroxal kenn du dàq kenn kenn du toroxal nit ci wetam kenn du toroxal kenn ci wetam kenn du wàññi darajay kenn ci wetam sallallahu alayhi wa nekk nit ku mat nekk nit ku mat nekk nit ku baax sallallahu alayhi wa yàlla gërëm ko mu nekkoon jëmm yërmande mu nekkoon jëmm yërmande bàyyi ma yi sax dañ ko dañ ko bëggoon amul benn benn bàyyi ma bu ko daan daw giléem lu mu lu mu soxor soxor wala giléem lu mu met met met met su gisee yonent bi sallallahu alayhi day daw tafu ci moom wàcce loos wi bóof ci kanamam xam ni ki mooy jëmm yërmande du benn benn picc sax dañ daan dox ba yàgg ñuy tong ci mbaggam mi ngir yërmande gu mu amoon ci ñoom nga xam ne nii da daan jëflante ak mbooleem mbindeefi yàlla yi da daan jëflante ñoom ci yërmandeem jooju jaam yeeg nit ñi ñuul ñeeg doxandeem yeeg ñépp ku mosaan am soxla ñëw ci moom mu jox la yitte mel ni buur moo ko seetsi na buur di ñëwee di la seet si nga jóg dalal ko fa nga fonk jox ko yitte ju toll nit déglu ko nee na jaam ba gën a ñuul ci jaam yi dib jullit su musaan ñëw ni dama la soxla yaa rasulallah danaan ñokket jóg jiitu dalal la ba nga dal mu kafal la ba nga ñeme koo wax li nga bëgg mu door lay dépp dékk nopp mi sell yooyu sallallahu alayhi wa nga wax ba àggal mu tontu tontu bu neex dugal mbégte ci sa xol dugal mbégte ci sa xol dugal dal ci sa xol sallallahu alayhi wa sallam moo tax bunt bi fi la yem mamalaaji maali bi nga xam nag moo bind téere bi mooy wëlbati nag nag di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yaa qaadiyan bi ufuulil badri muntahiyan alayhi salli wa habli xayra muxtatami yaa qaadin leen yow yàlla yow mi nga xam ni yaa dogal ci sa dogal bu rëy ba bi ufuulil badri ci fay weer wa weer wi leeroon wa naññ toll ci fukki fan ñeent leer nàññ fu waay toll ñëpp digal gi ko séen yow mi nga xam yaa dogal mu fay muntahiyan muy aji jeex nag salli maa ngi lay ñaan nga julli alayhi ci moom wahab lii te nga may ma man alaaji malik xayra muxtatami mujj gu rafet yaa man atamma xilaas yi faa'iqan duraran qad zayyanta siratan min qirati durami yaa man atamma yow mi nga xam ne yaa mottali te ku mat yaa ko mottali lii ba ñu ko tàmbalee di juróom-ñett fukki téereeg nangam alaaji maa ngi sukkandiku ci di ba bind ci xilaas sahabam bii ci ndimbalu yàlla la ko tàmbalee ci ndimbalu yàlla la àggee mu ne yow yàlla mi nga xam ne yaa mottali xilaas bii faayi xan nga xamante ne defar nga ko sàmm nga ko aar nga ko ba mu gën a foor gën a cher wurusu dër xat zayyan xat zayyanat yal na ci rafetoo yal na ci baaxe siiratan min xiiratin nuzumi jikko yi ki nga xamante ne moom lañu tànn muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ba ku ko bëgg roy mën ko cee royee salawaatullahi wasalaamu alayhi alhaji malik radiyallahu taala ma ngay ñaan atmim lana nuurana waxfir jaraayibana taqdi hawaajana yaa yaa waasi alkarami at mim lana nuurana yàlla nga nu mottali sunu leer leeru sharia ak leeru xaqiqa yàlla yàlla nga nu ko mottalil waxfir jaraayimana nga jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc ak sunuy njuumte taqdi hawaaja naa nga fajal ñu sunu aajo yëpp waasi alkarami yow mi nga xamante ni waasi arrahmi yow mi nga xam yaatu yërmande hamdan yuwaafi bi ancaamin lana wa farrat li rabbina hmm, wa yukaafi zeyd min naami hamdan cant guur am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem wala hamdan ñeenti xaacant yépp yuwaafi yoo xamante ni dana dëppoo bi ancaamin ci xéewal yi nga xamante nii yàlla def na ko wa farrate mu dollil nu ko fulandi nu ko lanaa yal na am lanaa yal na nu ñeel li rabbinaa yàllaa moom cant googu cant gi nga xamante nii xéewal yi nu yàlla defal dana tollook xéewal yooya yal na nu ko yàlla defal si sunu sunu borom subhaanahu wa taala wa mu doy sëkk fi zeydi ci ndollent mi na naami ci ay xéewal yàlla nu ko yàlla defal maam laa ji Malick nee na wa sayyiul jalbi wa sayyiul jalbi qad jinaa wa laysa lanaa min at-tasawwuqi buddun waasiu al mu ni wa sayyiul jalbi yàlla ah man alaaji Malick day indi nañu sayyiul jalbi marchandise mu bon min at-tasawwuqi ci marché bi walaysa lana buddun te mënul ñàkk mënul ñàkk ndax marché moom lépp la lañu fay jaay marché lépp nga fa waa si alkarami yow mi nga xamante ni yaa yaatu yërmande yow nag sa teraanga yaatu na ba ñëpp xaj nañ ci teraanga jooju yàlla na sunu marchandise miinu indi ci marché bi mbokk ci teraanga jooju wa jamratun fil qalbi muhriqatun lakin la taqnatu tutfiu min al hadami loolu nga xam ne nag mi ngi ci marché bi te yàq rek moo leen fi tax dindi loolu naqari dama naqari dama doole mi ngi mel ne jamratun xalu safara fil qalbi sama xol bi mën a laa ji Malik di ko lakk waaye nag yàlla dafa def ni wax nga ci alquran ni laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamian gis nga nee laay ji bu mu wàccee ca laa xam ni marchandise mi kat lu muy bon bon wala lu muy ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw mën na maa am yaakaar mën na maa am espoir ndax yàlla yaani laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamian mu ni bu leen naagu mukk ci yërmande yàlla bu leen defe ni mukk mukk man ngeen tooñ yàlla lu tax meram jóg man ngeen ñàkk topp yàlla lu tax mu jéppi leen nee na yërmande moo jiitu meram te yàlla nee laa laa na bu leen naagu min rahmatillah inna laa yaxfiru zunuba jamian yàlla mooy mooy jéggale bàkkaar yépp nee na bi laaya jooju wàccee nag nee na tuttiu daana mën a fay min alxadami lakk-lakku xol sama lakk-lakk xol waaye mbokk yi Maam Alaaji Malick ku doy waar la xoolal rek fi mu daanee la way wi ak ñaan gi nga xamante ni ñaan na ko ci biir way wi mu ni faatinaa faatinaa fi liqaayi maatiida mink yàlla nga nu jox fi liqaay jamono bu ñu dajeeg yow ma tiida li nga baaxaw li nga li nga aada woon ak ñun li nga aada woon ak ñun min ke muy bàyyi koo ci yow minul xofraani ci njéggal gisal ba léegi moom alaaji maay bàkkuwul wanewul ni maa fii ngand mi wanewul ni maa def lii waaye gis nga ma ngay yaakaar njéggalu suñu borom nee na bis bu ñu dajee yooyu suñu borom yàlla nga nu jox la nga nu aada woon jox xam nga ku ne xam ne yàlla yàgg na noo jox ay teraanga rawe na njégal teraanga yi ak baale baale ak njégale wal ixdaau akuk du mooyu minal juróomi ci tooñkat yàgg nga yàgg nga du mooyu ay tooñkat mu ne nag aska salaatin wa alaha wa afawha alal mutayabi fi haalayhi mutasimi amin ya rabbi aska salaatin gën ngaa selli julli aki i sëlmal wa aalahaa la ca gën a kawe wa fahaati la gën a sell alal mutayibi yàlla na nekk ci ku sell ki fii haalayhi ci ñaari ñaari adduna ak alaaxira mutasimi yow sama cëslaay yow sama jéggalaa kon xoolal lii rek xam nga mbooleem góor yàlla yi ñu ngi rawante ci tawaado mboolem góor yàlla yi ñëpp kenn ku ci nekk xasida bu mu bind boo ko xoolee ca ca jeexital ba day daal di ca suuf ba pare waa ni waaf rek ni mënuma dara xamuma dara rek ni groupe ci kanamu sunu borom subhanahu wa taala waaye ni groupe ci kanamu yonent bi sallallahu taala wa sallam nga nit ñu baax ni daawuñu naagu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daawuñu ñëw benn bis ci jàkk ji ci kaaba gi fekk fa jibril ah jibril yow da ñëw fi doo ak siman mu ne ko leele mu ne ko lu tax mu ne ko tiit rek ak ragal mu ne ko looy tiit rek ak ragal mu ne ko bañ rek suñu borom def ma ni mu def iblis iblis jaamu yàlla bu baax la woon waaye lànk ndigal ak féeteerlu loolu ak yàlla jéppee ba génne ko këram ñu ñunom ñoom ñaar ñu nekk fa di jooy ba bët set ku ne dem suñu borom dabaatal nag ni ko waaw nii rek la de alxawf wa raja laa yaamunu makrullah illaa qawmul xaasirun kenn du naagu ci samay ci samay mbir ku nar a naagu ci samay mbir rek moo nar a juum moo tax yàlla ñaari laaf la ñuy naawee jëm ci moom yaakaar ak ragal yaakaar ak ragal xam nga yonent yàlla ibrahima li muy baax baax baax yàlla mos na ko yedd ndax benn yelwaankat moo ñëw ci këram di ko yelwaan reer wala ab añ mu ne ko nag gëm nga yàlla mënu ko déedéet mu ne ko gëm ni moo ma yónni mu ne ko déet gëmuma yàlla ba di la gëm di mu ne ko génnal sama kër man sama kër ku gëmul yàllaa ko yonentam du mën a du mën jox sama lekk waa ji gindi ko ndokk génn dem yoonam nes tuuti jibril ne cëpp ne ko sa borom nee na yaa bind jaam ñi wala moom moo bind jaam ñi Ibrahima sujjóot ni ko ah kañ yàlla bind jaam ñi mu ne ko ni nga mi mel yaa ko def sa bopp wala yàllaa la ko def mu ne ko yàllaa ma ko def kay mu ne ko na mu mel yaa ko def wala yàllaa ko def mu ne ko yàllaa ko def noonu mu ne ko da nga yàlla mënu loon soppi sa jëmm ji ngay kee weddi kee di yow ngëm mu ne ko ah mu ne ko sa borom nee na nga dab ko teral ko mbaa mu dégradé la maam Ibrahima daw yenu bool ba def tànki niin daw ba dab waa ji ñu ko sarax ma ngir yàlla nga ñëw lekk ñam wii ndax sama borom dafa ma yedd ci li ma jëflante yow mu ne ko sa borom ban mu ne ko sama borom bi ma yónni mu sa borom bi ma yónni moo la yedde ngir man mi ko wedde mu ne ko mu ni ko waaw mun ko yaa baax borom ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko ibrahima xalilullahi la yontu yàlla nuux yàlla mos na ko yedd ndax dafa mos a romb benn xaj xaj bi ragg lool jeex tàkk wow koŋ siri ngara ba ñuy génn noox sax waxul dafa ni mu yéen xaj bi moom ñaaw na di noonu ma ko wax ci xelam rek yàlla def wax ca xaj ba waa ah, xasoo ma de xasoo ma de sama borom mi ma bind moom nga xas ndax man bu doon bind sama bopp dinaa bind sama bopp ma dàqala fuuf comme yàlla moo la def noonu def ma nii nag man xasoo ma yàlla nga xas ah moo tax ñu tudde ko axa nuux nuux daf ko jooy di dajjatu di dajjatu lool sax dégg nga lu bari bari alhaji Abdul Aziz da baax loolu ko nettali kon gis ngeen bàkku mag ñi bëgguñu kon benn yoon du ñu tëggu ci dara lépp dañ ko daan delloo ci yàlla ci yàlla si ma maay daanoon xaatabtu bi rabbi xitaaban laa yaliqu bi law kaana baawu ko laa yaatu su idamin laa yaatu su idamin bind naa yàlla de bind naa ba xaw a mànd ci li bind ah jaadoo loon ci man de bu dee dama xotti orma mbaa ma bëtt barrage waaye nag yow borom mën nga law kaana baabuka su fekkoon te ñun doo woon jëmmi yërmande ak jë jëmmi njëggal laa laa su eesam kon borom bàkkaar du kon kon doo tudde sa bopp su raxma ba borom bàkkaar di la seet si xoolal ma yooyu rek ziblul yaakaar naa si ci góor yàlla yi la xamoon ngeen ni. dafa bari woon xam-xam lool amoon na lopp junniy taalibe junniy taalibe amoon na ko waaye bokku bokku ñoon ay làng day toog ci digg bi ñi wër ko fu nekk ñii di ko laaj ci làkk bu nekk muy tontu su sigee siggi yam ci laxwul mahfuus lu mu bëgg a mokkal dana ko mokkal kooku ma yàlla la waaye gis nga xoolal tàkkusaan nga ko yàlla pine woon tàkkusaan nga ko yàlla pine woon gis ngeen ko moo tax yàlla kenn du jëm ci këram di bàkku ndax kenn safu ko kenn safu ko ndax la ngay loxo bi nga yëkkati sax ba naan cur moo la rof énergie nga man ko waaye bu la rof énergie doo ko man Jibril toog na ba yàgg mu ni taalibe yi na leen doxantu ñu ànd di doxantu war seen ay fas taalibe yëpp ànd ak moom muy kilifa gu mag di borom xam-xam ñëpp xam ko muy doxantu di doxantu ci booru yaman noonu ba àgg ci benn village village boo xamante ne xam nga tàkkusaan gi ni muy mel baarakallaahu euh, atmosphère yi xetu garab yi xetu darkase yi xetu màngo yi ndox mi ni muy jegee dëkk bi ak atmosphère bi euh, oxygène bi ngeen di noyyi mu neex lool waaye Jibril ni leen ah bu leen fàtte ni julleegunu tàkkusaan de ñu ni ko koñ sàngam day am na teen bu nekk bu bari ndox kon nan dem fa bu nemee jàpp julli waaye ñoo romb dëkk bi traversé rek dégg gaa yi di rëkk kolos bi kolos bi di rëkk ca kaw mu ni kon ñii ay catholique lañu moo wax naa ni waaye mii ñii daal dëgg-dëgg ñi daal ñoo ñàkk xorom dëgg dëgg dëgg dëgg ñii teraanga ji leen yàlla jox ak fi leen yàlla teg au lieu ñu gëm lislaam xanaa nekk ci seen caaxaan yi rek nekkete loolu loolu yàlla sanctionné na ko sanction sanctionné na ko ci sanctionné na ko ci fi ko ci yàlla nattoo mu dem bàgg ca teen ba ñu fekk benn xale bu jigéen bu rafet ma nga ñuul yegg ca kaw bët yaa ngi weex taal maanaam na ko yàlla bind daal yéeme na sëriñ bi nag jàkkaarloo nag xale bu jigéen bi di ko xool rek di ko xool rek xale bu jigéen taxaw rek di ko xool rek xam naa xaw na ko yóbbu ah ba taali bi mag yi daal di wax eh, bëkk nag moom ni ko waa waxal sëriñ bi nañu julli boog ñun jàpp nañ ba pare sëriñ bi taxaw rek mu ñëw ne sëriñ ñëw la ñuy xaar de mun leen ci lan boobu yàlla nga commencé rékki mu ne ah julli mu ne julli leen ah mun na ne jullee sëriñ mun julli leen ñu dem ba waxtu yu bëgg génn ñoom ñu julli sëlmal di ko taxaw nag ba yàgg sëñ bi daan ni xale bu jigéen bi yow fan nga dëkk ni ko man maa ngi dëkk ci biir fii sama baay mooy chef de village bi mooy kilifa dëkk bi mu ni ko euh, dama la bëgg jabar benn meer daan ca toll ni ko góor gu baax te ngaa dem dox sa soxla xale bu jigéen bii de boo xamoon li ko fi bàyyi di nga dem bàyyi ko fi ndax moom day ay rakam yëpp sëy nañ ba am ay doom waaye de moom mi ngi nii rek de te ko fi bàyyi mu ngi leen bëgg na wax ma wan ma sa pàppa ñu dem mbàgg ca kër ga fekk baay bi toog mu nuyonteeg moom baay baa ngi yor génn gën goo xam ne nii mu ngay xëcc rek di sànni yore la beneen torpito boo xam ne nii wax mbubbi par douze ak ak mbaxane yoo xam ne mbaxane torpido yoo xam ne macha allah moo tëdd jigéen genn njoowaan mu egg yi nuyoo jàmm sant ak moom ni ko toogal mu toog mbaa jàmm mu ne ko jàmm la kay sa doom ji jigéen ji moom a tax a ñëw mu ne ko ah lan la mbaa jàmm mu ne dama ko bëgg bëgg nga may ma ko waa ji ne ñokket di di ci njoowaan gi mu ne ko ah sama doom ji li ma koy mayee critères yi ci nekk yépp benn dajawul ci yow benn lii nga sol mel na colug jullit bëgguma ko simmi ko mun ko loo bëgg ma sol mun ko demal ci néeg bi loo fekk ñu wékk nga sol ci muy summi palmaan bu ma soloon wékk sànni fa solal la benn partous ak benn mbaxane partous ak daal di daal di def coogalam mun ko waa kay yaa ngi may commencé neex de moom moom moom moom moom ni ko léegi pour ma pour ma may la sama doom yi gis nga garab gële ngay séen mu ne ko ah mu ni ko géttu mbaam xuuf ay mbaam xuux ñoo fa nekk da dem foofa di ma leen di leen sàmm ba mu mat weer ma boo ñëwee ma may la ko mu ne ko nangu naa taale bi mu àndal yépp jooy ndeke boobu rékki nañ ko xale yépp jaxasoo mu dem di sàmmi mbaam nekk ca àll ba di sàmmi mbaam di sàmmi mbaam ñetti fan waa dëkk ba ñibbi ñeenti fan koo laaj mënoo wax fan la góor gi nekk waaye ka ca gën a mag ñi nag na leen def sarax te defi ñaan ki nga moo tax ñuy xeeb sarax ak boo waxee ñu dugalal ci foo xam ne naka ñu xamuñu la xew sarax lu baax la daal ba gën a mag dirise daara ji jàng alxuraan def ay sarax lu togg ay ñam wax dëkk bi yëpp ni nañu toroxlu suñu borom ñaan suñu kilifa gi yàlla na ko yàlla delloo si bi ñaan gi paree rek la yàlla roofaat branchement bi ca sëriñ ba ñu nekkoon ko na dem la ngeen seet sëriñ ba bi ñuy fekk sëriñ baa nga toog ca àll ba ak toog ci kanamu mbaam xuux yi ba mun séenee gaa yi mu daw laxasu leen mu gaa yi fu ngeen nekkoon waaw lii lan la luy lii luy leen waaw mbugal mi lan la góor gi ni leen day bi ngeen defee seen ñaan yi ba pare ci la ma sama borom feeñu yónnee ma ndaw mu wax ak man ilham ni ma sarax yee ñu la saraxeel ak ñaan yee ñu la ñaan moo tax yàlla delloosil la waaye wax ja wax ca dëkk bële xeeb leen ak coof leen ak defe yow rek na ci dëgg ak defe ne rek yaa lu baax looloo tax yàlla rékki la ba wan la ni lay sama kër kenn du fi indi daraja ak sañ-sañ dangay ngay ñëw alxawfu war rajaa histoire bu gudd la bu neex xam naa du ñàkk ci biir waxtaan yi du ñàkk daañu ko ci musa dugal incha allah waaye li ma bëgg a wax fu rek mooy góor yàlla yëpp dañ daan wàcce seen bopp góor yàlla yëpp dañ daan suufeel seen bopp koo ci ne yow mun du yow bu ñu dayee ci àll bi dégg naa maam Cheikh Sadul Abi ak Sidi Hadj Malick ak maam borom Touba radiyallahu taala dégg na daje nañu fii ci Ndakaaru loolu yàgg na ñuy jiiñante julli ku ne naan jiital sama morom ku ne naan jiite ku ne naan jiital ku ne naan jiital ku ne naan def nañ fa lu mat presque deux heures de temps yoo xam ne amul kenn ko nangoo jiite nit yàlla yi noonu lañuy def dañuy joxante cir dañuy ormalante léegi la yii xew propagande yu kenn xam rek waaye ñoom ci lii lañu mus di dox xam naa dañuy teg foofu suñu baaraam rek ba ajjuma jeeñag nag ñu ñëw nag jeexal ko nag ndeysaan dañuy góorgóorlu rek yi ñu ci def yëpp pour xaw végétation bi la rek ndax ñu bari dañuy woo di ñuy dànkaafu ci loolu waaye ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax di ñaanal sunu yaay soxna soxna na fi jara eh, di yaay ci soxna Aïcha di ñaanal sunu soppi yi nga xam ne yëpp noo ngi ñuy déglu fii ci jamono bi ñu toll di déglu ci émission bi heure bi euh, quatorze heures trente wala quatorze heures pile ci ajuma ji daañu ko rediffuser waat incha allah euh, bu quatre heures du matin daañ ko ci relivisaat daañ ko tegaat ci yéen ñi nga xam ne rëcc na la ñu ngi gërëm baax suñu sponsor bi Lidor Matla ak Pape Ablaye Dieye mon ami et frère l'infatigable ñu ngi koy sant baax di ko gërëm oustaz Alioune Sall lay bàyyi place bi mu ñëw ci tafsir bi ba pare jox sañ Mbàkke incha allah alimul sañ sëñ imam Momar Seck danaa àndaat ak moom ci bu 22h30 jotee asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu